إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد mbokk jullit yi gannaaw ba ñu sante suñu boroom seede ne moom dong yeyoo ñu koy jaamu ñu ngi seede ne yonent yàlla muhammad ab jaamam la woon bu mu yónni ci ñun ñi ngi ñaan yàlla julli ci moom ak njabootam ak ñi koy roy ba ilaa yawmi diin gannaaw bu mbokk jullit suñu boroom mooy boroom temps moo séddale jamono ci guddi ak bëccëg séddale ko ci ay bis semaine bi nekk juróom ñaari bis ba àjjuma ji ñuy taxawal amuñu droit di ko taxawalaat lu dul gannaaw juróom-ñaari bis yooyee romb mu séddale ko ci ay weer weer yooyee nekk fukki weer ak ñaar mu tànn ca ñeenti weer wormal leen ñaar ya jàll nañu benn ba ci lañu nekk nii wala boog ñaar ya ca lañu nekk nii benn ba moo nekk suñu kanam di muharram gannaaw ba beneen ba nekk ca kanam ak kanam muy li ñuy tudde rajab mbokk jullit suñu borom moomu tëral muy ajjuma ji nga xam ni moo mujj ci at mi ajjuma ji nga xam ni moo mujj ci at mi loolee lum ñuy jàngal mbokk am ata ngi wee génn at moomi daanara nekk seede ci suñu kaw yowmal qiyaama suñu borom danañu laaj kam labistum fil ardi adada sinin ma yéen ñaata ngeen dundoon ci kaw suuf ci ay at su ko defee ku nekk gala la ci yàlla sédd at maa ngi nii di jeex loolu nag daf ñoo war a jàngal ne wares na koo jeexale tuubaat dellu ci yàlla jeexale ko sàkk suñu ngërëmal borom ndax borom bi ci xéewalam lu nekk ma ngi koy attee ak mujjam amul kenn koo xamee ne nii sa mujjug bis baax na lu dul yàlla jéggal la rëcc rëcc ya nekkoon ci biir amul kenn koo xam ne it sa mujjug at baax na lu dul yàlla jéggal la rëcc rëcc ya nekkoon ci biir su ko defee nañuy góorgóorlu di bàyyi xel suñu borom ni muy wëlbatee guddi ak bëccëg yàllaa ko def ngir la nga waroon a def ca guddi su la rëccee nga dabantal ko ca bëccëg la nga waroon a def ca bëccëg su la rëccee nga dabantal ko ca guddi comme naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale jullit war a tàmmal boppam ay askar muy tudd yàlla bu suba jotee mu sant yàlla ci suba ju mu indi comme naka yonent bi doon defe mu ngoon jotee mu sant yàlla ci ngoon ju mu indi mu am ay askar yu ñu tuddee askaru sabah wal masa mooy zikr yi nga war a def ci suba ak ci ngoon bokk na ci yooyee subhaanallah wa bihamdihi téeméeri yoon subhaanallahi wa bihamdihi téeméeri yoon ca suba subhaanallahi wa bihamdihi téeméeri yoon ca ngoon noonu it lañ lay wax ci laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir nga koy def ca suba ca di ko defit ca ngoon ya loolu muy am ca istixfaar ya loolu moo am ca zikri ya waaye rawatina di yeesal sa tuub suba goo jot di yeesal sa tuub ngoon gu jot yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na suñu borom dana tàllal ay loxoom ca guddi ñeen ñi doon def ay bàkkaar ca bëccëg ba ana kan ci yéen mooy tuub ma baal ko bu guddi gi jàllee dana tàllal ay loxoom ci bëccëg ba ñeen ñi doon def bàkkaar ca guddi ga ana kan ci yéen mooy tub ma baal ko mbokk guddeeg bëccëg ñi ngi nii di liggéey ci ñun ab liggéey bokk na ci liggéey boobee ñi ngi ñuy rompat nank nank nank nank galla way kenn ci yéen bu demee kër ga na bàyyi xel ñaata ci ay jege ñaaleem ñoo faatu ci at mi ñaata ci ay xaritam ñaata ci ay dëkkandoo ñoo faatu ci at mi ñaata personnalité ñoo xam ne fu ñu masaan génn ci réew mi mbooloo topp leen fu ñu leen tuddee ñépp xam leen loolee ñaata nga xam atum ren ñoo xam ne ñoo ci faatu loolu mbokk lu mu lay jàngal mooy a xamal ne yow dañu laa retardé waaye sebisi ngi ñëw de loolu la ku nekk ci ñun war a góorgóorlu di bàyyi xel heure bu yégée ne am at a ngi jeex mu xam ne ah man kat sama dund gi yëpp ndekete moo at mi ñoo yem sama dund gi am na foo xamee ne nii fa lay nekk di jeexe ñu war a góorgóorlu xeex ak bakkan yi taxaw ci li neex yàlla jalla wa ala àdduna bañ ñoo këf suñu borom yàlla nee na àdduna bànneex bu ndaw la buy naxaate loola tax ku mel ne xasanul basri rahimahullah mi nekkoon sang ci génération yi toppoon ci saxaaba yi ñu tudde leen ak taabiin daana wax ne man day saxaaba ya ma fekkoon ci jamono ña yonent bi alayhi salaam yaroon gisuma ci woon kenn koo xam ne adduna du nekk ci loxoom itteel na ko ba mu koy dara ci lenn ci jaamu yàlla gis mu ci ñoom kenn koo xam ne ñàkk gam nekke woon am na lenn lu mu ko gàllankoor lu dul kenn du ko jiitu ci jaamu yàlla am ak ñàkk lañ yemele woon adduna dafa meloon ci ñoom ne suuf si ñuy joggi ji dem faale wuñ woon jur gu bëri ga tool yu bëri ya alal yu bëri ya faale wuñ ko ci woon lan lañ ko doon doy sàkku ci ngërëmal yàlla kese mbokk ñooñu ñooy génération bi suñu yonent muhammad alayhi salaam yaroon yar leen ci lan daana wax te wax joojee man ko wax keroog ba ko Omar ibnul Xattaab fekkee mu tëdd ci benn bassan néegu yonent bi alayhi salaam dara néewu fa dara du ay armoire du lenn décor mbuus pepp bi nga xamee ni nii ca la waa kër gi di dund mi ngi nii Omar daal di jooy mu ne ko moo Omar lu xew mu ne ko ah xanaa dund ko tar ji rek ak ñi nga xam ne nii tey noonu lislaam yi ni ñu nekk seeni pale mu ne ko moo Omar baabi da ngaa nekk sikk sàkka ndax tànnoo ñun yàlla jagleel ñu àllaaxira ñoom yàlla jagleel leen àdduna mu ne ko man meek àdduna ñu siq man àdduna dama koo jàppe ne waa ji nekkoon ci yoon di tukki romb benn garab mu toog fa nopp lu tuuti jëlaat ay bagage am dem ca mbokk loolu la jullit war a jàppe àdduna xamal ne danga fee jaar léegi nga dem ngal la waaye li la fi yàlla dénk bu mu la itteel da ngay dem doo yóbbaale dara loolee mi ngi noonu looloo tax kenn ca ndaw ñoom yaroon di ibnu omar moom da daan wax ne kenn ci yéen bu xëyee na waajal boppam ca jàpp ne mën na am balaa ngoon a mu faatu kenn ci yéen bu ngoon jotee nay waajal boppam mën na am balaa suba mu faatu loolu bu ko defee nga góor-góorlu bàyyi xel nag fa nga jëm mooy fan ay yéen mbokk jullit suñu boroom dana indi guddi ak bëccëg di la jàngal yow yaay kan yow doomu aadama benn waaju baaxe ne ni ku ñu yaakaar ci moom ak mbaax bokk ñi ngi ko doon tudde Moussa Ba bokkoon na ci fondateur ci li ngeen di dégg mouvement Al Falah am na conférence bu muy def fii ci jumaa di set loolu ëpp na ñaar fukki at ëpp na ñaar fukki at wala ñaar fukki at juróom sax muy toog mu ne ay yéen doomu aadama yi xam leen ne jant bi bés bu nekk mi ngi lay jàngal yaay kan nee na bu fajar jotee leeraay bi nekk ci penk bi jant bee ko waral jant bee waaj a fenk su ko defee ñu ne ah diw day ëmb na ñu ne sa yaay ëmb na la gannaaw ba jant bi fenk ñu ne yow judd nga boo juddoo amoo benn tàngaay ngay dem di màgg di màgg ba jant bi nekk ci digg midi tàng jër mu ne boobu yaa ngi nekk sa digg ndaw loola neex def waaye balaa yàgg rek jant ba di dem di dem ba jëm ci so sedd gu yi mooy même boo deewul lal ba nga toog da ngay dem ba dootoo fu mën a jóge ci balaa yàgg jant bi so ba jant bi so ñu naa diw dee na mbokk yeeg xarit yeeg dee na pendant trois jours une semaine un mois diw dee na ay diw ay diw mujj dañuy dem ba fàttele complètement say doom ña nga ca seen i soxna say soxna mën nam sëy nañu feneen sa alal siddu nañ ko fàtte nañ la complètement mu ne nag jant boobu dina jàngale ay kan yow góor góor loolu yow bañ a fàtte sa bopp ca mooy àdduna loo fi am xamal ne la nga xamee ne nii mooy yàlla moo ko gën yàlla moo ko war bu la lenn dox sa diggante ak sa borom jalla wa ala moom mi ñu doon defal film boobu laa ne doon bam faatoo kenn xamul kañ la loolu it ñuy wane ni mbokk ñun ñi ñëpp bu ñu nax suñu bopp bu ñu nax suñu bopp mooy adduna bi ni bis yi jeexee weer yi jeexe suñu dund noonu lay jeexe kii nga xam ne moo am xel ci ñun mooy kiy jëfe waxi borom bi subhanahu wa taala borom boobu nga xam ne moo woo julit ñi ni ay yéen julit ñi laa tulhikum amwaalukum wala awlaadukum an zikrillah wa man yafal zalika fa ulaika humul xaasiroon bu mu fexe leen ba alal ji ngeen di dajale doom yi ngeen bëgg ñu réussir bu mu dox seen diggante ngeen fàttali ko seen boroom képp koo xam ne alal ak doom dox na sa diggante nga fàtte sa boroom ca mooy fàtte ay ndigalam ak i tereem ku mel noonu day yow yaay ci perte ngalawaay li ma leen war a sëgal jël leen def ci lu leen jëriñ balaa dee di ñëw ku nekk ci yéen di rëccu naan ay waaye ak a nee xool ma dundaat tuuti ba def lu baax wallaay mbokk julit ku demoon laaj waa yoof armeel yoof ay yéen néew yi fi tëdd buñ leen yóbbu woon àdduna lan moo nekk seen itte wallahi ñoom ñëpp seen wax de passé le Alioune ibn Abi Talib waxoon keroog ba mu àndeeg lenn ci ay sahaaba ñu dem di ziyaare bàmmeel yi mu ñëw ne ay yéen yaa ahlul qubur ay yéen waa bàmmeel bi ñu ngi leen di wan day kër yi ngeen bàyyi woon ñeneen donn nañ ko seen soxna ya ñeneen jël nañ leen alal ja ñeneen ñeneen séddoolu nañ leen waaw yéen lan mooy seen xabaar yéen àll na seen ndaw mu ne maa ngi leen di seedeel ne bu ñu mënoon a wax seen wax mooy fa inna xayra zadi taqwa mooy la gëm lu doomu aadama di dajale mooy ragal yàlla mbokk mi ngi noonu kër yeeg oto yi compte bancaire yi naam loo ci mën dajaleel à condition que mu lay jóbbu ci ragal yàlla lépp nga sax ko ca la nga xam ne mooy ngërëmal yàlla lépp lu nar a dox sa diggante ngërëmal yàlla xamal ne musiba la ñeel la loolu mbokk ñun ñëpp ñu góorgóorlu bàyyi ci xel jéem a bàyyi xel suñu digganteeg suñu borom jéem a bàyyi xel suñu digganteeg suñuy moroom bañ a tooñ kenn bokk na luy alak doomu aadama say julli baax say koor baax fekk yaa ngi tooñ nit ñi lekk seeni alal tuur seeni deret yàq seeni der loolee mbokk day alak doomu aadama yowmal qiyaama comme naka yonent bi alayhi salaam waxi mooy ñi perte ci sama xeet ku nekk ci yéen na góorgóorlu sama dund gi am na fu mu yem lan laay jiital ëllëg su ma fi jógee lan moo ma mën a fekk si yonent bi alayhi salaam ne bis boo dee say jëf jeex na waaye nag boo jàngale woon lu baax lu baax loolee ñu koy jëfe dana la fekk ba ila yawmi diin loolee bu imam bi wala professeur bi waaye ku mën a doon yow jigéen nga dajeeg sa mbokk jigéen bu dul muuru nga naxanteeg moom ba jàngal ko mu mu commencé di muuru bu doon dangaa dee da ngay gis ne muuraay googee muy jëfe yàlla da la koy fay kum ko jàngal yàlla fay la ko ba ila yawmi diin gannaaw ba mu ne sarax buy wëy alal joo xam ne da nga koo jël def ko ci ngërëmal yàlla jàkka ya teen ya la nga xam ne mooy daara ya la nga xam ne mooy projet yiy dimbali lislaam gannaaw ba nag la gën a gën mooy doom ju baax du lay ñaanal su ko defee ku nekk ci ñun it war a góorgóorlu sa dund gi am na fu mu yem la ëpp ci ñun suñuy bàyyi dem nañ doom yi nga xam ne suñu doom lañu nañu investir ci ñoom investissement ba gën a rëy mbokk du ne nga encadré ko ba mu am ay doctorat wala nekk professeur waaye investissement bi gën a rëy mooy nga fexe ba jàngal ko diine teyte ko ci diine heure boo faatoo mboolem lu mu jaamu yàlla yàlla bindal la ko heure bu la ñaanalee yàlla subhanahu wa taala nangu ko lii mbokk mooy taxawaayu képp ku xellu doomu aadama yi koo ne amoo xel mu mer waaye kan mooy ki am xel yonente bi alayhi salaam nee na alkayisu man daana nafsa wa amila lima baada al mawt ki am xel dëgg-dëgg mooy kiy xeex ak bakkanam mbokk bakkan bëggul jaamu yàlla bakkan daa bëgg bànneex ki xeex ak bakkanam ba jëfe li nekk gannaaw de mu ne nag waaye wal aajis man atbaa nafsahu hawaaha wa tamanna ala allahi al amaani bokk nañuy lot ca yàqule rawatina boo nekkee dëkk bu mel ne Sénégal mooy topp sa bànneexu bakkan ba pare jàpp ne ah àllaaxira garaawul su ma demee ah waaye yàlla dana ñu yërëm sëñ jiw ma nga foofii ah nangam mi ngi foofee mbokk loolu ci seytaane la jóge doomu aadama xamal ne responsable nga sa diggante ak sa borom bu la yàlla dee acte di la laaj ndax jëfe nga samay ndigal bàyyi du taxaw sëriñ du taxaw kenn du taxaw yàgg sa borom rekk la su ko defee ki am xel mooy ki xeex ak bakkanam ba taxaw ci ndigalu yàlla yi la ca gën a am solo mooy farata yi li yàlla gën a bëgg ñu defal ko ko mooy farata gannaaw ba nag ñu góor-góorlu ci naafile yi naafile yooyee naafile yi koor naafile yi taxaw guddi naafile yi génne ay sarax naafile yi suñu làmmiñ yi fu ñu toll ñuy tudd yàlla lii lépp mbokk borom xel dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne mooy taxaw ci lii yàlla mi nga xam ne moo ñu bind yàlla na yàlla déppale ñu ak ngërëmam yàlla nañu yàlla jeexalal at mi ci jàmm yàlla nañu ko jeexalal ci tub gu ñu nangu yàlla nañu ko jeexalal ci teggil ñu fitna yi nga xam ne moo nekk ci kaw suuf bi ci gën a tar tey jii di fitna yi corona yàlla na yàlla musal ñu ci ay sabab yi mu àndal yàlla na yàlla teggi ko ci jéggalam ak yërmandeem yàlla na yàlla wërsëgal ñu lii di mujj ko rafet defal ñu ñun ñëpp àjjana muy nekk suñu wàccuwaay allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين